ahlan wa sahlan ana lan moo gën a def bës ni actualité ci semaine bii ñu génn dañu koy door seen limite point com moom mi jël xalimaam sëpp si daaji si piwi cax bind si Adamo ba xolam set nee na Adamo ci boppam donte sénégalais yépp ñu ngi koy critiqué waaye moom lañ gën a suivre Instagram de aha maa la ko wax mën la koy live bi nga xam ne Adamo doon na ko def si kaw duudu ba seen limite point com nee na Adamo record dëgg la laal ndax 31 700 si ay am na ko moom kay bam dafee ab xam ne day indi ay leeral yu am solo ci kaaw bi nga xam ne moom moo di kaa duudu bi sénégalais yëpp a ko doon seetaan pourtant ak sénégalais yi ci boppam ñu bëri dañ doon wax naan duudu nañ ko sàng sutura ñu doon wax nañ sàng sutura duudu ñoo demoon di dooleel aadamoo di ko seetaan ah maa la ko wax de li ay jikkoy sénégalais yi seen limite point com wéyal daan na yow sénégalais yi ci boppam kaa yu mel noonu dong leen ñor de ñu ci bëri ci sénégalais yi loolu la ñuy wër looloo waral yenn programme yi nga xam ne day am ci tele yi ñu ci bëri dañ ko du mooy de jox bopp internet bi seen limite point com wéyal daan na gannaaw vidéo duudu bi bi mu tasaaroowee ci internet bi duudu ci boppam message na ki nga xam ne moom moo di Adamo di ci wax ak moom suñu bës tamit bind na ca ba jotee ci information bi nii la ko bindee nee na kaawteef gu mag ndax série Adja mi ngi tasaaroo si internet bi suñu buzz woyal daan na aadamoo ci boppam lam xamle moom moo di benn xale bu jigéen bu nekk Italie moo piégé duudu ba tax mu génnee ay awram si internet bi seen limite point com woyal daan na Pape Sidi Fall de moom dal na ci kaw aadamoo ba xolam sedd ci xaawi sutura doomu jàmbur yi nga xam ne moom la aadamoo nekkee IGFM ñëw bind si Wally Ballago Seck ba xolam sedd moom IGFM nee na yéen fantu Wally Seck yi yéen ñi doon xaar concert bi nga xam ne Wally waroon na koo def bay boo ngeen tàllal ba caaka la ko wax Wally Ballago Seck concert bi nga xam ne moom la ñu dëgmal la ko waroon a amal puus na ko ba le 12 nga xam ne moom moo di la koy mujjee defee UGFM daan na li waral lu ni mel moom moo di problème mu technique moom moo ca am looloo tax ñu puusaat date bi ba le 12 juin senego.com ñëw bind si kiwin bis ba xolam sedd nee na wàccee na mbuur ba zéro ak puisament bam fa mayee lan maa la ko wax de mën na la kay xale yu góor yu bëri yu nekkoon sa concert boobee dañ doon gën si kiwin bis ba seen xol sedd mën la kay loolu wër na internet bi yëpp moo xam mu nekk Instagram wala Facebook ci préparation kilibam bu bees bi nga xam ne moo tudd ñëw na way ñëw nga ñëw nga ni nga ñëwee sax daa am doole concert ak lubrique ba nga xam ne ñoo nekk ca mbuur kiwin biis da ba mu fa demee wàccee na ko ba zéro ñépp ci colam nga lañ nekkoon di débat débat bu rëy tamit ubbi na ci biir semaine bi Seneweb moom moo ko bind ndax yow actrice bi nga xam ne moom moo di Fatal Sow moom dañu koo agressé foofu nga xam ne Grand Yoff ñun nangu oram nangu itam li nga xam ne moom moo di iPhone 11 am hey mbay maa la ko wax ma a la yow kay ay jëfkatu yu bon ko agressé moom di Virginie gars yi kay dal giñ dal ci kawam lu ko bett la looloo tax kay xamul woon fu mu nekk da doon tiit di raf-raf yi ñu nangu ay fanam nangu itam oram ak yenn bagage yu sew yi nga xam ne moo nekkoon ci saagam hey mbay waa mais réew mi est-ce que dina neex ma ne la yow lii mooy Sénégal de senego.com bind na tamit ci Viviane ba xolam sedd xam nga yow kilibam bu bees bi nga xam ne mooy yëngal statut yi yëngal internet bi ma ne la Viviane dóorati na beneen gaaruwaale ak xale yu góor yi de lan moo tax Viviane saa yu génnee clip rek yàq góor ñu lu mel ne xeme lii moom Viviane mel na kuy tontu nee na li ko metti moom moo di taskatu yaakaar yi nga xam ne ñoo nekk ba ba doon am sa États-Unis Bécaye Mbaye boppam moo gét la sa doon waxtaanal senego point com moo ko bind senego di ñu xamal nañu Bécaye Mbaye si boppam doon na dox ay tànki jàmm diggante moo gét ak Wally Seck de aha maa la ko wax ndax Bécaye Mbaye nee na leen yéen ñaar doo leen ay noon de da ngeen a war a waxtaan bu ko defee ngeen jiboo moo gét si boppam lam tontu Bécaye Mbaye moom moo di Wally Seck sama diggante ak moom réeroo dong moo ci am ak ñàkk waxtaan waaye lenn lu ñaaw amu ca Bécaye Mbaye nag nee na mbir moomee du ko bàyyi mu jàll ñoom ñaar ñuy dëkkee defante nee na dina ko lijjanti dox ci tànki jàmm ba ñu jiboo xeli mi jàpp Adamo si live Instagram ba yàkk ko lu mel ni xeme moo get da moom da see kontaan ba xamul fu muy taxaw nee na jag privé la koy yónnee mu ñëw États-Unis mu jox ko job amul fenn ndax li mu yàq Adamo hey Mbaye Adamo ak moo get moom jamono ji comme xaj mu si bi duñ mayante amul lum ko yàkkul moo gedda desee kontaan waxoon na ko itam aadamoo di nga tuub du yàgg dara di nga bàyyi moo tax vidéo bi nga xam ne aadamoo moom la def di jéggalu sénégalais yépp te naan bàyyi na jëf ju ñaaw ji mu doon def moom ñépp la jaaxal waaye nag kali yëf yi bett ko ndaw waxoon na ko aadamoo lii comme guerre